ñoo ñoo xooj li du caaxaan kër taba ngay séddale Ndakaaru ay junni ngay maye ndar ba daar sëñ Cheikh pisin ba sëñ baatoon ceeba saaño ngay maye sëriñ Cheikh waajule gedde gaañu Mbàkke ba Jurbel ko fi jin tuuse sabang leel kër bañ moo xuuse te na nga def ci réew mi yaa kubashira inshyamba ke yarodura bal burak mufajja moy tabibu mu mufajja moy habibu moy rahmatul alamin suraw lo ñak ne ko mangi aw madara daru khudos daru khudos daru khudos da no fay dinamo akay xey may lo ne len ko mom la apar yang fa ki na di corne su sa ba bu tiet ba ko borne cheikh mustafa cheikh modou mustafa man sunu la cheikh mustafa mon ci raay bi Cheikh Moustapha bi def jumaa ji Cheikh Moustapha ni Cheikh Bamba ca biir mooy waaja yaa di doonoom Cheikh Mbacke balay sa soo daagu mbaaga jay ma jox njukkal Cheikh Abdou Lahat ma jox njukkal Cheikh Abdou Lahat dëggub sëriñ bi moo ko laat lii ma waxati waat séddale kër yi seen borom morom bile yaa mat li nga waaju gëlëm nga woon ko jaw si ah, lii lii nag Mbacke Euh, dëgg fa yàlla dañ koy xool ba ca dañ koy xaw a xeeb waaw ndax euh, xëy na bari na waaye euh, suñu xol ak suñu yéene ak suñu pas-pas yegg na ci bis bii nga xam ne sa bis la mooy bis bu màgg ci yow muy bisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga bàyyi fépp ñëw ba fii ci keppaaru julli géej gi di ko fi di fi def ñun lii moom ñoo ko waroon a yoral suñu bopp yow moom da ngay toog rek di xool te it dana ñëw incha allah rabbi allah yàlla zid na ñëw ndax la ñuy wax ne sëñ Tuubaa amul tànk gannaaw bis dana ñëw Mbàkke na nga ko bëggee dana ni amee waaw loolu moom ah, ku xam yoonu murit xam ne noonu lay doxee waaw ndànk-ndànk rek waaye bis dana ñëw lépp dana sotti incha allah kon nag ah, Matar Diouf mi nga xam ne mooy suñ jëwrin ak soxna Sooda Xumma nga xam ne moo ëmb euh, jigéen ñi ñu ngi lay nuyu di la di la dalal euh, di la ñaanal suñu borom ak sa maam Cheikh Ahmad Bamba ah lépp li nga xam ne nësër nga ko ci àdduna ndax nit ku ne da ngay am projet ci àdduna mooy loo xam ne nësër nga ko ci àdduna mu ngi sa xol bi yàlla na la ko suñu borom won ci sa dund waaw nga yàgg fi lool nag Mbàkke yàgg fi lool torkal Mbàkke waaw mhm. waaw waaw waaw waaw euh, incha allah rabbi tey dañu nañu fanaan ak si jëmm ji fii ci bërëb bi nañ ko daan defee at mu jot rek ñun duñ dem fen fii la ñu ne waaw ba ba fajar nga ñaanal ñu ñu daal di yewee ko ah, yal na la suñu borom jàppale ci lépp li ngay seen nësër lépp li nga mën ah, te itam di la di la yëgal ne ñun say taalibe dong lañ duñ leneen waaw te loolu buñ ko defee itam dañoo doon suñuy wéyjur rek ndax suñuy wéyjur nii nañ fi nee woon waaw kon nag ñun it nii rek lañ fi mën a ne waaye nag ñoom ñoo ñu gën ñun. waaw waaye nag ba tey bu ñu juumee dañu xam ne juum nañu rek day dellu gannaaw rek xam ne lii mooy suñu cër ne sa gannaaw rek mooy suñu cër. yàlla nañ ko yàgg ànd ak yow soo doon nee na lépp lu sim fii rek moom ma nga ci biir ak ku mu àndal ak ku ko nangu noo ngi ñaan nag te doole Serigne Touba ak Serigne Fall lépp lu loo bëgg ci kër gi daal la man loo na ko nu man ko te sunu xol yi nangul ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi lay siyaare sëñ bi nee na mi ngi nuyu mbooleem képp ku fi teew rek ñu ngi lay nuyu. ñëw Soxna Soda. ñi ñëw ci turu Soxna Soda. ak sëñ Maxtaar. ci njiitalu sëñ Babacar mi toog. ak Soxna Suado. ak ñi mu àndal ñëpp. sëñ bi nee na mi ngi leen di delloo nuyoo bi gën a rafet. di rafetlu bu baax a baax. kàddu yi nga xam ni yëkkati ngeen ko fi di rafet rafetlu bu baax a baax teraanga yi nga xamante ni indi ngeen ko fi waaye duñu wax guleet ndax at mu ne nii ngeen koy defee te at mu ne lu ngeen defoon da koy gën a yokk rek boole kook ak yéene akub nangu akub taalibe gu rafet tamat seuk kon nak lolou mom amuñu sen fay di ngeen koy def ta xamni guddi gi moy guddi bi yonnati sallallahu alaihi wasallam Serigne Touba fonkon ko lol ngeen di ay Serigne Touba am pas-pas ci sëriñ bi. di liggéeyal sëriñ bi. di liggéeyal sëriñ bi. xam ne xam ni. képp ku ci jëf ku ne. képp ku ci jëf ku ne. yéen lay jàppale. yéen lay jàppale. ngeen bañ ñu koo bàyyeel. kon ñu ngi leen di sant bu baax. di leen gërëm. di leen yóbbante ay cant. ci Cheikh maxtar ak ki nga xamante ni moom mooy soxna Sodu Xuma. di rafetlu bu baax a baax seen teewaay. seen taxawaay di leen xamal ni kër gi di kër soxna May day seen kër ndax kenn ku ne am na loo séqoon ak soxna si de yaakaar naa soxna Soodo waxtu wu ne mu wax ko soxna si da ko ne woon damay jiitu nga topp sama ginnaaw kon fu mu nekk fu ne soxna si la fa nekkal kii di Cheikh Makhtar yi tamit way juram soxna si kenn la woon ci moom mu jëloon ko dénkoon ko ko cër googu mu ngi koy doxal ba nëgë kon yéen fii seen kër la ëppalewuñ leen fi dara te seen taxawaay ci kër gi tamit matala ngeen ko lépp lu leen fi war yéen a ngi koy def kon li ngeen seqoon ak soxna May. ginnaaw bi ngeen ko seq ak soxna Bali. loolee ngeen di wéyal ba nëgëni. ñu leen di xamal ni. fépp fu leen mag ñoo ñu féete woon. ak taxawaay bi ngeen taxawoon ci seen wet. fas na nu yéene. kóllëre googee. ñu sàmm ko. ba keroog ñu leen di fekki. yalla na yéex kon ñu ngi rafetlu bu baaxa baax liggey bu reey bi nga xamanteni yeen yéen ngi koy liggey ci biir dakaru ni ngeen taxawoo ñaari rakk yi fii ci Parcelles asini di ko ànd ak mboolemi taalibe yëpp bu dee soxna nag ak sëñ Babacar mii ak mboolemi seen rakk yi dana amaat ci ñoom beneen cër ndax seen wayjur ak sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma la woon loolee lañ ma jàppe kon loole tamit ràññee naa ko ba nga ba nga xamante ni yëg naa ko bu baax a baax xamante ne maa leen xamante ni jàpp naa ko bu baax a baax di ñaan yàlla rek mu sàmmal nu kóllëre gi te may nu kàttan gu mën a liggéeyal sëriñ bi mu yàgg lool. lepp serigne bi nangul nuko ko du di sante bu baax mbollem talibé yi ngeen andal ak ñi ngeen fa bayyi di len xamal ni yeen ñëpp dal di len seereel sunu cant ci kurel gi ak rafetlu gunu rafetlu sen liggéey ak fas gunu di wey di and ak yeen ci liggéeyub Serigne Touba bi kon ñi ngi sante di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah wa taalaa wa barakatu